Euh, alhamdulilah euh, diine ñu ñuy jëggaani ci naar wala keneen du aw xas aw tagg la ah, waaw loolu de bariwul luñ koy dégg moom liñ doon faral di dégg mooy yéen moom diiney naar ngeen yor naar yee leen ci diine naar yi ngeen nekk bàyyi fi diine mag ñi naar yee leen di financé et cetera wax yoo xamante ne amul bopp amul ngeen ku bëgg a xam ndax diine ji ñuy dund nii euh, ñu lay financer di la jox xaalis moo tax nga di ko dund. na ñëw gàdduy milliard am andil ñu kon mu xam ne pas-pas dara fayu ko te amul prix njubug sunu boroom gi xol bu mu xas ba dugg xol booba boo ko doon jox àdduna li ci biiram mu wan ko gannaaw ndax bal tuthiruuna alxayaata addunia wal axiratu xayrun wa abqa da ngeen jël àdduna teg ko ci kaw àllaaxira mu gënal leen ngeen cay sonn di ñot ñoti te moo ne àllaaxira moo gën te moo gën aw yiw te moo gën a des moo gën a yàgg ndax du jeex te poñetum aduna mi mom bo de rek pare nga ci te ken xamul kañ kay man na doon bus bu ne kon ku japp ne alal motax nit ki di fas pas pasam na gaddu alalam indi ba xam nu ñuy def ak mom kon bir mi du euh comme que jeggani diine du aw khas jeggani diine ci naari du aw khas te comme kayit euh, wa tariqa ñoko ñëk def wa sunna kon baax na kon bu ko defee ñu xam ne kon diine yi naar ngeen yor wala naar yee leen di financé loolu wax la joo xam ne waxi guddi la bu bëccëg ñëwee mu demu yoonam teguwul ci xam-xam teguwul ci xel mu sax mu rafet waaye dafa tege ci ñàkk ay lay nit moom bu fekkente ne ki jàkkaarloo moom amul ay lay bu boobaa lu ne dana ci dugg li arab bi wax naan al gariqu yataallaq walaw bi xuyuuti al qamar ki lab moom ceeñeeral weer wi tege ci ndox mi sax mu def ay ferñeent da cay jàpp def jàpp ne loola dana ko musul fekk ne du noonu allahul mustaan